te lu ma leer la ci Kaolack lii ñu jëflanteeg boroom ñaari tur yi ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ko mën a naqarlu nga xam ni ñoom duñ ko rafetlu ñett rek lañu ñi ci jiitu mooy ñi nga xam ni dañoo doon ay boroom ñaari tur na moom na waa ji nga xam ni moom la def lii ñu def su ko rombee mooy ñi nga xamante ni nii gaaduñ ay boroom ñaari tur waaye Sénégal gii bi ngeen fi déggee borom ñaari tur yi ba tey ñi mu jaare ci seen loxo projet yooyu ñi mu jaare ci seen loxo mooy ñi leen di encadré ñi mu jaare ci seen loxo mooy ñi yor seeni mbir di ko doxal bokk ca biir ñii wóor na ma ni duñu rafetlu li xew Kaolack li waa Kaolack jëflante borom ñaari tur yi su ko ñooñu mooy ñi nga xam ni yàlla daf leen a nattoo ñoom dañoo bëgg lu bon bañ lu baax ñoom bokkuñu ci ñaari groupe yu njëkk yëpp waaye nag ñoom lépp luy baax lépp loo xam ne bokk na ci mbaax loola day metti ci seen xol mais lépp loo xam ne dafa bokk ci lu bon day dundal seeni xol ñett ñi dong ñoo mën a naqarlu ñoo mën a ñaawlu ñoo mën a mettitlu li waa Kawlax def borom ñaari tur bii nuyu naa leen bu baax fana gudd ànd ak wér sutura ak jam jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañ ko yàlla bal defal li tax d'abord li ci jiitu rek mooy mbir mi ki ci war a njëkk a addu ki ci war a njëkk a déglu mooy diine charia moom mooy definiir li waa Kawlax def est-ce que est-ce que est-ce que loolu Kawlax buñ ci buñ ci bëggee wax dara jëmee ci ñoom buñ ci bëggee jëf dara jëmee ci ñoom ki ci war a wax mooy diine charia malheureusement diine li waa Kawlax def diine jotu cee wax te mooy fekk boroom ñaari tur bu ñu rob ba noppi ñu sulliwaat ko teg ko taal ko loolu moom malheureusement diine jotu ci wax kon diine ci yàlla wax diine mi nga wax ci borom ñaari tur bi nga xam ni mi ngi dund te ñëpp xam ni kii borom ñaari tur la di dund borom ñaari tur bi nga xam ni it ñëpp xam nañ ni borom ñaari tur la mu faatu ñu war ko rob ana nan lañ koy robee kooku diine wax na ci jàngale na ko mais ñaar yii yëpp ñaari ñaar ñii mala wax ñëpp kenn ku ci nekk li diine bëgg ci moom yëpp dafa bëgg ñu toroxal ko dafa bëgg ñu doyadal ko dafa bëgg ñu weer ko dafa bëgg ñu ñu def ci moom lu may lu bon bëggul ñu def ci moom lu baax bëggul ñu def ci moom lu rafet bëggul ñu def ci moom lu yiw werante nag am na ci ci àtte yooyu werante am na ci werante am na ci bu ñu xamee ni kii boroom ñaari tur la fekk muy dund ana nan lañ ko war a def boroom xam-xam yi ci seen biir ci diine am na ci werante waa léegi nag kon bu ñu wëlbatikoo nag faf waa Kaolack ñoom lañu def diine jutu ko woon atte jutu ko woon wax jutul woon leeral ni ñuy jëflanteeg ñoom mais man sama xol man daf ciy sedd ndax man sulli gii ñu ko sulliwaat teg ko ci mbedd Kaolack yi taal ko jóor koy pëna sotti ko essence taal ko ba mel na kuy taal mbalit man moom man defuma lu mooy sant ci waa kawlax defuma lu mooy gërëm leen ci defuma lu mooy di leen wax félicitation beneen bi ci des mooy faf dafa am ñoo am sax ndam ñi am ndam tey mooy waa ànd sàmm jikko yi tey ñoo am ndam li ñu ca bëggoon yépp mooy lu mel nii bañ am tey te mooy bu ñu bu ñu bu ñu juboowee déggoo mànkoo ci képp koo xam ne borom ñaari tur nga teg nañu ay atte ci lii la Sénégal bi jëflanteeg yow lu mel nii du am ci bi ngay dund ak ci bi nga faatoo mais loolu waa ànd sàmm jikko yi bi ñu jugee di xeex seen xeex booba lañ ca bëggoon mooy ñu criminaliser góor jigéen ci buy dund mais aussi ca biir waxtaan yooya ñu tëral ay sart ba dëppoo ca ba déggoo ci def ko ci suñu constitution ñu mën a xam képp kuy borom ñaari tour nan la ñuy jëflanteeg yow mais bi mu amee fii. fii lañ leen ko lankal bëccëg rek kam Sénégal ñu wax ni quatre-vingt-quinze pour cent sont des musulmans ñu war a attewoo ci diine ñu ni du diine mooy wax nan la ñuy jëflanteeg borom ñaari tur senegal lank ni du ko def ba ñu koy wax booba ñi na ci réew mi yëpp ñi ngi fi ñi ñu fiy tuddee kilifa gu mën a doon ñi ngi ci réew mi fii toog mënuñu weesu pétition signer pétition doomu ci lañ mën a fii ànd sàmm jikko yi jàkkaarloo gouvernement bi di xeex ak ñoom ngir ñu attewoo ci diine moom mënu nekk Sénégal moom nee nañu moom téeméer boo jël juróom yi rek ñoo dul jullit mais nee nañ duñu ñu attewoo ci diine d'accord waa ànd waa ànd sàmm jikko fekk si nañ leen ci loolu mais ñu ni kon ci constitution yi atte yiñ ci jot tëral leerul li ci jiitu loolu nañ ci d'accord suñu noppee nag soog a xool ana nan lañuy ñuy jëflanteeg ñoom ci mbooleem loo xam ni rek ñoom ne nga ca Sénégal lànk ni du ko def gouvernement bii tey jàppal leen tànk ba ba mu dëgër këj kilifa yi nekk fi xam nga Sénégal bul fàtte naar feq daf ñu sonal naar feq daf fi yaatu lépp loo gis ci réew mi mënul fexe ba jàll ci mbaax naar feq gu metti moo fi am te naar feq googu ku ne di nga ko ca fekk di nga ca fekk ko bokk ci gouvernement di nga ca fekk ko bokk ci diine ji di nga ca fekk ko bokk ci tarixa yi kilifa gu ñu tudd ci réew mi di ko feq ca biir naafeq ga naafeq yooyu ñoo taxaw fii di di di di di tappale di wax ba tax tey ji ba tey jii tey waa ànd sàmm jikko yi amuñu ndam ci liñ bëggoon xeex waaye léegi nag kon nag léegi dañ leen war a àtte ci diine te mooy dëgg ñu ni duñu àttewoo fii ci diine muy musiba maa ba kumba lii rek lay jur ñu wëlbatikuwaat waa ànd sàmm jikko yi doon ay nit ñu baax taxaw pour ñu xeex góor jigéen jëflanteeg ñoom jëflante goo xam ni képp koo xam ni yaa ngi ci ak nguur jigéen di nga ci génn wala boo ci génn lu di xam ni bis bu ñu àgg ak yow ci lii di nga ko rëccu Sénégal gouvernement bi fi nekk bu Macky Sall bii nga xam ni tey défendre mbon dong lañu fi nekkee ni noonu du fi amee waa léegi nag waa ànd sàmm jikko yi dem nañ toog ak ña ña bëggoon jàppale ànd sàmm jikko yi ci xeex bi yëpp dem nañu toog kon bu ñu xëyee nag tey mu feeñ fi am kuñ ca bëgg rob ca Kaolack ñu moom seeni armeer suul fa ay nit ñu baax ñu xëy-xëy seetlu kuñ fa bëgg rob te ñoom ñu mujj gëstu ba xam ne kii boroom ñaari tur yi la jël ko sulli ko yóbbu ko taal ko man damay wax jërëjëf waa Kaolack damay wax félicitation waa kawlax amul lu loo amul lu waaye mën a wax waa kawlax man li ñu def dama ko rafetlu képp koo xam ni ñaawlu nga ko <coughs> non képp koo xam ne yaa ngi bëgg wax ni lii ñu def ceci cela di expliquer ñun dañu lay wax merde ak koo mën a doon nag su amee kay ñu jar a félicité xam nga ñan la mooy waa Pastef Italie parti boo xam ni dañu wax ni tas nañu ko parti boo xam ni dañu wax ni jàpp nañu leader ba ka ko jiite woon parti boo xam ni ba ñu jàppee leader ba ña topp ci ginnaawam yëpp waroon continuer wéyal liggéey ba dañu leen jël tëj leen ñii ñi ngi ci contrôle judiciaire ñenn ñi fitnaal nañu leen ba mari de taali ña ca des ku ne am na fuñ jaar ak yow parti boo xam ne nag wax nañu ni féete na boor te parti yi nga xam ni tey ñoom ñoo fi des di doxal di xëy ci réew mi mën a gis parti bañu bañ ni moom doxalatul tas nañ ko def nañ ko lépp mën a teg ay acte yoo xam ni parti yi fi nekk mënuñu ko parti Pastef kay moo am dam

dañu dañu nekk dañu nekk ci dëgg dañu gëm li ñuy def comme salle bi dañ ko luye bokk na ca la tax ñu bëgg a wane ni ñoom li ñu nekk dëgg la mooy location bi sax dañ ko war a fay moo tax entrée la ñu ko def di euros patriote yi ñëw dagg di euros pour dugg ci salle bi duggaat ci salle bi cotiser ci benn bés 100 million pour parti Pastef mais parti bii moom la ñuy wax ni dañ ko tas. partie bii moom la ñuy wax ni dañu tëj ay leader am parti bii moom la ñu wax ni dañu leen lu ñu leen yàkkul fii amul kilifawu parti ba ma nga ca hôpital tëdd ñu koy ñaan nag mu bàyyi grève de faim bi vraiment man grève de faim bi ànduma ci te saa yu ma saa yu ma saa may wax ci réew mi su ma accès ci moom dinaa ko wax ngir yàlla nañu fexe mu bàyyi grève de faim bi su yàkkul du defar loolu laa gëm waaye jamono ba mu tëddee foofa moom gaa yi nekk ci dëkk bi di di di defi pexe gaa yi nekk ci dëkk bi di tracer ay ay deal gars yi nekk ci dëkk bi di seet nu ñu def ba moom du bokk gars yi nekk ci dëkk bi di seet nu ñu def ba ñoom ñu mën a bokk gaa yi nekk ci dëkk bi di seet nu ñu def pour seen parti ñoom mën a am doole sénégalais yi mën leen a wuy si sénégalais yi ak adduna bi yëpp mën leen a jox bopp te jamono boobu kenn la ñu jox bopp kenn la ñu wuy si mooy le présidence Ousmane Sonko yàlla ko yàlla defal jàmm yal na yàlla fëgg boppam yal na ko yàlla muccal ci loxol noonu yii mu nekk léegi nag fii mu toll nii jot na sëkk ci Macky Sall deltu gannaaw ci li mu nekk waaye Macky nee na du ko def parce que nag dafa mel ni nag yàlla muriigul ay bëtam ba tey ci mu xam ne li fi yàlla dogal lii la ñu leen di dànkaafu nag bis bu ne mënul tax ngeen dégg waaye nag seen bopp fanu guddaan ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañu ko yàlla bal defal ba beneen yoon incha allah